bon suñu mbëbët conseil de quartier bi conseil de quartier il faut il est temps ñu xamal ko nit ñi moom mooy lan ndaxte li ci gën am solo mooy c'est apolitique fii ñi fi daje ñëpp ku si nekk am nga foo ne am nga foo far mais dañoo dajal dajaloo teg suñu conseil de quartier pour défendre suñu gox loolu mooy njëriñu conseil de quartier bi bu ngeen xolé tey dem ngeen fa gis ngeen euh, koñ bi ni mu meloon bi ngeen fi ñëwee kérok tey gis ngeen am na xar gu bess gis ngeen lampe yi nga xamante conseil de quartier bi fexé nañ pour xeex insécurité fexe nañ ba lampe déer tey ñu taal ko fii koñ bi yaakaar naa yëpp nee na yàññ ñëpp gis nañ ko ak yeneen ñi nga xamante ñu ngi fi nekkoon wàllu mbalin mi tuurum ndox mi loolu lépp fexe nañ ba jëm koo daggal suñu biir quartier yi nga xamante ne quartier bi fii incha allah ba année prochaine ku fi ñëw dina xam ne suñu quartier bokk na ci li nga xam ne moom moo raw deuxième point bi mooy conseil de quartier bi mbir la boo xamante ne ñu ngi ciy woo ñëpp donc dañu bëgg ñu mel nii état ak ñeneen ak ñeneen ak yeneen koñ yi ñu roy ci parce que nit munoo toog rek naan sa koñ wala sa gox wala di xaar ci état mais li ñuy xaar ci nit ñi mooy état bi ak quartier ñu jéem a jogal seen bopp avant tout def li nga xamante ne bañ cee xaar kenn su ko defee état bu ñëwee fekk si leen ñun yaakaar naa loolu mooy suñu concept kon conseil de quartier bi vraiment Bagdad 2A ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ak suñu délégué feejoon nga xamante ne dafa jàpp mais jox nañu kàddoog ñaari cadre la yotti di waxé tour vice président en tant aussi chargé de communication relation ak euh, li nga xamné moy carte bi. donc lolu carte bi vraiment ma fi gëna a mais nak doy nek ci zone bu doy war zone bi tay bo xolé comme nim ko waxé arrêté bi nga xamné mo moo 2016 indi li nga xamanté moy gàllankoor nañu. gis nga xalé yi bo gisé tay ñu sawar ñoom ñoom ñu téw fi amnañ ay jafé yo yoo xamante ci côté ay këyit yu mel nonu ndax tay da nga am jafé jafé xam sax fo fété ci walu ñaari communes loolu nag ñu ngi leen ciy ñaan ñoom ñu dimbali ci lillaay wa rasuuli ñun ñu xam waa Bagdad euh, maanaam marché bu bees Guédiawaye actuellement ñun fan lañ féetee carrément ñu mun a xam suñu bopp ndax ñu mën a am ay kayit yu wóor xam fu ñu féetee ndaxte loolu tam ñu ngi leen ciy junju ñu nag ay responsable lañ bëgguñu def naka su noonu moo tax ñu def alert pour ñu xam fu ñu féetee sinon bu dul loolu xale yi junju nañ ni bientôt fii ak deux mois ñoom dinañ def beneen doxalin loolu nag ñun ay responsable lañ duñu yegg ak ñoom foofu